al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taxala wa barakaatu ñu ngi nuyu bokki jullit yi bokki taalibe bi yépp di fàttali leet rek suñ bopp di fàttali ñépp lu jëm ci wàllu siyaar sëriñ bi waxtu wu ne ñu leen ko fàttali ndax sëriñ bi am na waxtu yoo xane moom lay génn te waxtu yooyu muy génnit ngir bëgg a euh, saafoonteeg mbooloo mi rekk la ba tax na waxtu yooyu mu tànn di ko génn ñuy ñaan ñun euh, ñépp ñu maase ci sàmmal ko waxtu yooyu muy génn ba koo xamante ne bëgg nga koo gis walla nga bëgg fee indi kenn koo bëgg a nuyoole ku ne xam na ne li ko tàmbalee ajjuma gaawu dimaas ba altine ñeenti fan yooyu yépp li ko tàmbalee ineer ba ba mbooloo mi jeex dana nekk ci seen biir ginnaaw moom bu xisee génn ineer du fatu mukk te gisul ñépp te waxtu yooyu la tànn ngir ñu jàppale ko ci jàpp naa ne ñun ñëpp kon war na noo mën a tënku ci waxtu yooyu ndax kat bu kenn ku ne toppee sëg bëgg wala nii laa ci toll wala nii laa ci mel yaakaar naa bu ko nangoo yit dana nangu loo xam ne gënalu ko ci biir ba tax na li am solo mooy nañ ko sàmmal waxtu yooyu ndax bari na ñoo xamante ne dañuy bëgg a jóg ñëw ci waxtu fajar bi waxtu fajar wi bu génnee jooxe faratee sunu borom ji moo ko tax a génn waaye génnul ngir ñu siyaar ko kon la gën kuy siyaar nga bàyyi ba waxtu yi nga xamante ne moom la ci génn keneen ku ñëw yeneen waxtu it nag moom buñ ko yëgalee mu agsi ci moom duut la mën a ñàkka bañ a woo waaye woo googu mu lay woo it ak lu man di wax yow na nga xam ne du lu ko gënal ñuy laabire suñ bopp di laabire ñëpp nag bëggoon ñun ñëpp ñu mën cee jariñ ndax ñun ñëpp kat ku mu mën a doon bu ngeen di wax la muy wax mbaa ñi ngi sakkanal sëriñ bi waaye ni ma koy waxee rek dafa mel ne kuy man di wax naan nañ mbaa ñi nga sakkanal sëñ biir it bu yittee boppam taxawee mu fàtte sakkanal sëñ bi kon kenn ku ne sakkanal googu nga koy ngay wax danga koy tàmbalee ci sa bopp te yomb na ku sës ci moom balaa kenn ñëw am na kum jaaree kooka bu woo bëgg a ñëw nga xamal ko waxtu yi nga xamante ne moo gënal sëñ bi ci mu gisee ak moom yaakaar naa bu ñëpp maasee ci loolu dana gën a euh, euh, tax mu mën a jot boppam ba li nga xam ne dafa bëgg di ko def di wéet ak borom man koy def ni mu ko bëggee ndax la sëriñ Murtada daan wax rek nit ñi dañ lay doxale seen diggante ak yàlla ba noppi dox sa diggante ak yàlla loolu mooy nga tënk ko ci jamono yépp ba la war digganteem ak dëgg na mu ko bëggee amee ko ni du yomb kon nag loolu noo ngi koy dénk suñu bopp di ko dénk bokki jullit yi di ko dénk bokki taalibe ñu xam ne sëñ bi am na ay waxtu yi muy génn waxtu yooyu muy génn ko ko sàmmal te waxtu yi ci des nag ah lu lu lu lu jëmput lu mel ne ku fi bàyyi ko te loolu bu fekkente ne lu fa am lu am la am na ñu sës ci moom rek moo ko jar ñu sës ci moom ñoo xamante ne koo ca jokkool dana mën a fexe ba yitte jooja ndax ginnaaw jooju yitte moom mënut a xaar yitte jooja. Euh, saafaraw noo ngi dénk suñ bopp di ko dénk ñépp du dara noo ngi jiglu bu baax ndax euh, bëgg rekk ak tànn bëggu sëñ bi euh, loolu rek moonu moonu moonu moonu joo ci kàddu yu mel ni toujours moonu jóo ci kàddu yu mel ni toujours kon nag noo ngi ñaan ñépp rekk ñu bàyyi xel bu baax xam ne sëñ bi am na waxtu muy génn wax naa ko waxati ko waxtu yooyu mu génn nañ ko ko sàmbale waxtu yi nga xam ne du ko génn nañ ko ko bàyyil ndax am na lu ko war nañ ko ko bàyyil noo ngi sant ñëpp di gërëm ñépp di jéglu ñépp ndax ku ne xam na ne nit ñi bëgg a gis bi ñépp nit ñu baax rekk lañ xir ci lu baax bëgg lu baax rekk la ku ne xam na loolu yenn waxtu yu ko yow yépp waaye nag loolu lépp it nag luñ bëgg bëgg bëgg nan ko teg cim xel nan ko teg ci ak nos it nag ak nos ndax lu teguwul cim xel teguwul ci nosu du am benn njariñ kon nan jéem a ànd ak suñuy xel te teg ko ci ab nos wax dëgg ay bis wu ne mu am ñeenti fan yum ciy génn am waxtu woo ne bu ko génnee mbooloo mi day jeex tàkk mu doo a dugg ci biir nañ ko sàmmal waxtu yooyu ko sàmmal yooyu ndax bu boobaa li ñuy wax nu ñëpp kat kon boobaa dana am ci moom dañ ko dañ ko sakkana lu néew néew jërë ngeen jëf noo ngi jéglu ñëpp di balu ak fa ñëpp jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf noo ngi tuub bu baax tey jéglu jërë ngeen jëf